inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayyuha alladina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima mbokkente no di ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci bésu salaatu ala nabi bi tey ñu ngi toog ak fi mu ne nii jëwriñ ñi nga xam ne moo yor wàllum culture fii ci daara salaatu ala nabi mu ngi wuyoo ci turu maam Cheikh Anta Sall ah, mas maam Cheikh Anta ñoo ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay liggéey bi nga xam ni tënk tënk nañ ko teg ko say loxo maanaam noo leen waajee bés bi ak yeen fànn ngeen ko teg ak noo leen ci doon jëflanteeg mbokki daara ji ba mën ko taxawal ba tey jii ci bés bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah sallallahu ala muhammad allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammad shiratillah wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammad sahibi qawli la ilaha illallah wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi waa wajaxal bi jaay axira kalaami laa ilaha illallah muhammadu rasulullah barke baram Tuubaa ñoo ngi leen nuyu di leen siyaare bu baax baax te jiital suñu nuyoo bi xalifatul am di taayifatul muridin Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko tey siyaare jëwriñ liggéey bi sëñ Bassirou Touré moom Cheikh Laat suñu borom yàggal ko fi lool te ko waaw suñu as ngeen siyaare bu baax te teewaat bu baax baax si kàdd yi nga xam ni ñu ngi koy bëgg a yëkkati doon jëwriñu daara yi salaatu ala nabi ñu dénk ma wàllum kitaraal bi liggéey bi day doon liggéey boo xam ni maam liggéey bu tënku la ñu lay ko salaatu ala nabi te salaatu moom amul yemuwaay waaye daanaka li sabab liggéey bi ab xalaat la rek bu jugee ci benn nit mu toog rek xelam ne si ne dañoo war a taxawal bisub salaatu ala nabi mu duggoo ko si groupe bi rek ginnaaw mbooloom yëpp àddu si mel ni sëñ bi daa dogaloon mbooloom yëpp amoon yéene ji waaye dañoo lottoon si wax ko far sa boroom dogalee foofu tawfeex googu ba bis bi ak si tey fii ndax su ma juumul bisub tey bi mooy ñetteelu at yi daara ji am bañ ko sosee 2021 ba léegi tey ji la ñetteelu at bi daara ji nag li muy tënkoo ci salaatu ala dañuy tëj daara ji buñ ko tëjee ba alxames si tàkkusaan kuñ naan sëñ Birima moo koy tijji ne bismillah kenn ku nekk li mu salaatu bi nga def si ay bis bi moo xam sallallahu ala muhammad salaatu ummi salaatu naariya salaatu ak salaatu bu mu mën a doon nga dugal ko ak xasit ak salaat yi nga dugal ko boo ko dugalee it am na keneen ki nga xam ni mooy nekkaat ci biir groupe bi di kose li nga xam ni moom lañuy dugal ci salaat yi di ko di ko bind buñ demee ba samedi si gaaw si fajar ñu tëj góor bi compté li nga xam ni moom lañ jot a def ci ay bis bi salaatu ala nabi ñu tasaare ko si mbokk taalibe yi wala lii lañ def si si ay bis bi waaw salaatu yi nag tënkuñ ko fenn waaw moo xam benn nga def wala ñaar wala junni waaw ndax kenn ku nekk sa kéem kàttan ak jamono ni mu waaye boobu léegi sa borom mi ngi si defal tawféex ak mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw même daal noonu la daara yi doon doxee moom. waaw si salaatu ala nabi waaw. waaw maam Cheikh ñu ngi lay bëgg maanaam fi ne nii maanaam bi ngeen tollee ci maanaam taxawal bés bi ndax njaat njaat na ñaar la am ñetti at. te bis lu toll nii mu ngi door a am ci daara ji ñu bëgg a xam maanaam wàccaay ci nan ngeen ko doon waajee ci yan anam noo leen doon tënkee limeeg noo leen ko doon dajalee ba mën koo teg ak yan xasida tey ngeen fi ngeen ngeen ngeen indi ci bis bi mën koo ànd ak mbokki daara ji ñu taxawu ko waaw ak sanaatu yi nga xam ne tamit bu la ndax daa mi ay sanaatu yoo xam ne ngeen koo tënkal mbooloo mi pour ñu nekk nekk ci tey loolu nag lañ bëgg a xam maanaam bés bi ci noo leen ko taxawoo ci ci ci xeetu ay ibaada di ci mel ne ay salaatu ak ay xasida yu waaw salaatu yi de bi nga xam ne moom mooy sallallahu ala muhammad ñu bari naan ko sallallahu ala muhammadin moom daal lu ëpp li ëpp waa daara ji di def waaw waaye wàccaayu liggéey bi moom daanaka dañ kaa teg ci gurup bi ñu xaaj ko ci ay commission yu faj yu yaatu moo xam ñi nga xam ne dañuy seddale xasida yi ñi nga xam ne dañuy dajale ak ñi nga xam ne ñooy coordonné wàllu xasida yi mbooloo mi nag takku na ñii nga nga bitim réew ñii nekk Touba ñu nekk Dakar ñii nekk Kaolack fenn fi nekk ci région yi rek am na mbo ku fenn ku représenté daara ji waaye lépp ñu ngi soq ko ci internet bi si WhatsApp bi lay doxee waaw dañoo ko xaaj ay commission ci dañ kaa xaaj bu góor yàlla yi ak bu soxna yi kenn ku nekk ba ñu dox la sa groupe ngay tënk la la nga war a tënk si wàllu bis bi nga koy doxalee foofu. donc loolu daal mooy li nga xam ne mooy sababu bis bi waaw ren nga xam ne mooy ñetti at yi nga xam ne yaatal moo tax ñu yaatal ko nii xasida yi nga xam ne moom tënku nañ ko mooy xasida ak salaatu ala nabi lu si mel ni muqaddamatu xidma ak nuuru daarini ak taysir ansir mafaati bisri mel ni kanzul muhtadin ak jaalibatul maraaxib ak durru thamin ak bidaayatul xidma waaw ak zikr ñi nga xam ni amuñ jot wala ci mbokk soxna yi nga xam ne saa borom day dogal am ngànd si ñoom ñoom dañ leen a féetaloo wàllum ñu yor seen kuréel di zikkar salaatu ala nabi waaye jëmi bis bi moom tey moom soxla nañ si cent vingt quatre mille fois quatre waaw boo xoolee daa mu doon ay huit cent mille ay huit mille nangam lu tegal moom moom moom lañ ci soxla waaw. waaw fekkee xes day moom xes dëgg salaatu ala nabi lañ ci gën a yittewoo waaw ngir ñaanal si waaye daw li nga xam ne saa borom dogal nañu jiitu te àndandoo na ñun liggéey bii lañ ci fas yéene ñaanal. ñu a lim yi nga xam ne daara ji jotoon na koo tënk ginnaaw ñetti at yi nga xam ne yëpp doon na ko taxawu ndax daa nekk liggéey boo xam ne dafa nekk ñi ko sekk dañoo nekk ci ay barab yu fasante ko te comme ni nga ko xamee sànq ko xamale sànq mooy ne dañuy tijji daara ju mel pare daal di koy tëj samedi bu noppee dajale lim yi mu mel ni at mu jot daan tënk lim nga xam ne daara ji daan na ko yëkkati at mu jot ñu bëggoon a xam lim yooyu bu dee jàpp ne da ñaata la ci ñetti at yi ci ngeen ko taxawee ci ay salaatu ala nabi lépp rek boo ñu ko maanaam ba daara ji sosoo ba léegi buñ ko daan wàññi daan nañ ko karmat mu ngi ni daara ji ñu ngi koy tijji atum 2021 lañ ko tijji ba 2024 tey la ñettaat ko defee wàllum salaatu yi nga xam ne def nañ ko diggante 2021 ba 2022 mi ngi toll ci cent soixante-treize millions mille huit cent quatre-vingt-treize moom lañ def si atum 2021 ba atum 2022 mu toll si 173 millions 953 mille 879 moom lañ def si atum 2021 ba 2022 su ko defee at masa topp mi 2022 ba 2023 mi ngi toll si 196 millions 338 mille 423 moom lañ def si atum 2022 ba 2023 su ko defee si atum ren nii ñu nekk nga xam ne daanaka ñu ngi ci ndorteel li tombeek suñu bis bii nga xam ni mooy ñetteel at yi lu tàmbalee 2023 ba 2024 def nañ ci deux deux cent cinquante trois millions huit cent quatre vingt huit mille six cent soixante neuf moom lañ def ci salaatu ala nabi ci mille vingt trois ba deux mille mu toll ci deux cent cinquante trois millions vingt douze six cent soixante neuf millions moom lañ def ci atum deux mille vingt trois ba deux mille vingt quatre boo nag diirum ñetti at yi nga xam ni daara ji def na ko ci salaatu na bi mi ngi toll ci six cent vingt quatre millions deux cent mille neuf cent la toll mille six cent vingt quatre millions deux cent soixante treize mille neuf cent soixante quatre millions moom la toll si daara ñi xam ni def naa ci salaatu ala nabi si diiru ñetti at yëpp ñu ngi ñaan daal saa borom nangul ñu liggéey boobu te fulal ñu ko ñu teel ñu ko ba ëllëg dañ bokk si ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day tiitaroo liggéey bi ñi nga xam ne bokkoon nañ ci liggéey bi te saa borom dogal ñu dëdd bis bi salaatu yàlla na leen fekk foofu saa borom dool leen ngërëm. akum njëgal ak tawfiq si barkib salaatu ala nabi jërëjëf inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما